wax sa xalaat ci nag la ñuy daal di euh, tàbbi kon euh, tey jii kenn tënku leen ci kàddu dañuy ñaan rek mu sol mbubu mu jot su ko defee nag dégg-dégg bi mën a neex mun ngeen wootee ci 88 628 98 98 bu ngeen nekkee Sénégal ca biti réew ngeen def 33 841 22 33 salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi noo def. Ibrahima Ndiaye Pikine Janraay moo leen di nuyu. Ibrahima fay nañ la. noo ngi leen di sant di santaat yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. di siyaare Sëriñ Abdou Karim ak Cheikh Mahamad Rafael Mbacké di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal Sénégal yëpp nag. amiin yaa rabbi. di siyaare mboolem ñu doon màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. ñaan yàlla yàlla yàlla jëgal nu ñaan yonent bi sallallahu alayhi yàlla du ko koy xéwale te leer. amiin yaa rabbi moom ak umay saa ba nekk ba jàpp yëpp ci barke Seydou Diop sallallahu soxna si rek li may wax tey jii daanaka maa ngi koy yëngu ci umay islam bi ci côté gi ma far demee ci wàllu moutisme bi. Mhm. yaa ngi ma dégg de. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. Eh, dëgg la eh, maa ngi dégg ñi kilifa yi ne ci yoon yi li ñu jooy lu am la. attaque bi ñu attaque l'islam rawatina yoonu murid métti na trop. may ñaan ñu koy attaqué ngir yàlla nu nu bàyyi sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa daaw tooñ te ku ko tooñ mu jégal la moom lii woon na ci ñun murid gëm nañ li ñu gëm te kenn mënatuñ caa jëlee kon nag lii laay wërësoo ku li ñu gëm banoon li nu gëm te demal la nga gëm jàmm ne koy waaye li ma ci dolli mooy ñu ñi nga xam ne bi nga ñëw fi nekk tey taalif ñu gën a góorgóorlu jàppale sëñ sëñ Muntaxa ndax yoon wi kat gannaaw léegi ñuy tam na wax dëgg yàlla yoonu sa jàpp ne bu boole ci ab lu ci bokkut léegi màggal gi ci boole lu ci bokkut gàmm gi ñu bëgg te boole lu ci bokk ay fekk ak folklore ci tëgg sëñ Tuubaa fawut foluwut sa alaaji Mali fawut foluwut yoonu sëriñ Tuubaa lépp lu ci waay da boole ci ndënd ci garana ci fecc xamale nekk waaye sëñ Tuubaa nekku yonent bi ñëw ci ñu baa bëgg ñi jiitoon di teg ni ñu ñu gën a gën doole góorgóorluwaat yori sagar dëkk ci mbedd di yelwaan suba ngoon mi na sëñ Tuubaa yoonam bi seen xam bi ci soli sagar ak salte ñàkk fay nag ñàkk woo sa bopp fay bi ci kami ku nangu romb nga tàll ko la ko loowa luwaayam luwaayam sëñ Tuubaa a jóg liggéey la wax ak jaamu yàlla ñaar fi ne woon Cheikh Rafal na ñàkk ñëpp ci joxe dafa leer sëñ Tuubaa liggéey jaamu yàlla képp la fi ne woon reporté njaay ca Pikine ginnaaw raay la doon wootee ay similiam moo jeex ñu xaarandi rek keneen ci bu mu bi euh, tey kenn tënku leen ci kàddu bi biti réew 33 le 841 22 33 salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. Euh, kii ka la Odile Belkilaan. waaw moom la. kii da Umar Sow la Fuladu. Umar Sow. ginaar na sant yàlla julli ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp gàmmu jàmm vraiment ñaan bu ñu ñaan bi ci gudd yàlla ko yàlla nangul Sénégal fépp nag Sénégal bàyyi ko man dina waxtaane ci ci ci seen invité bi lu mu wax léegi nii muy Bakary bi muy moom maane hmm. damay ñaax sama mbaa mbokku politiciens yi waa benn surtout surtout waa benn bokk benn bokk yaakaar Odile hmm. Sénégal cinq cent cinquante sept communes plus les de communes de Keur Massar ça fait cinq cent cinquante neuf communes il faut nit ñi xam ne Sénégal ku nekk ak mu ngi prétendant nekk maire cinq cent cinquante neuf personnes la ñu mën a jël def comme tête de liste maire ñëpp mënuñoo doom maire nañu ne àndal seen xel wàcce seen xool tuuti xam nga ne lii son la monsieur le président Macky Sall képp ku mu tànn yaakaar doon la am ci yow du du keesu moo gën du keesu moom moo gën a jàng wala wala mu ëpp nit wala mu ëpp lu mu doon yaakaar ba mu kees képp ñu tànn nañ ko jàppale laa la wax vraiment élection yi dem ko jàpp ak salaam Sénégal kuy gagné gagné jàpp ak salaam réew mi continue mm. actuellement boo dégloo rajo yi laa la wax fu nekk laalo la fu nekk laa nekk mu ngi prétendant man maa fi man maa man maa fi ñëpp mun ñoo doon maire ñëpp mun ñoo doon président conseil départemental loolu loolu amul vraiment loolu lañ ne noonu la dinaa lu kii loolu vraiment ni ñi nañ ànd ak seen xel ànd ak seen xol. Mm. ñun de au niveau du Fouladou le président du moom moom nangu na képp ku ab eh, képp son excellence monsieur le président Macky Sall ku mu tànn fii laa la fii au niveau de Kolda moo xam commune moo xam département bi laalo la dina ko jàppale lu mu ci man laa la ñu mun a gañ oo la mais parce que l'essentiel am na leneen luy ñëw lu maire yu passé le pays va continuer on va faire un autre gouvernement affaire bi bi gën a eh, dem kanam mun ñëpp ñu doon maire ñëpp mënuñu doon ministre donc nag képp koo xam ne wax jërëjëf Oumar Sow ca Fuladu la doon wootee moom ay simili moo jeex keneen rek bu dikkee Assane Thioune ñu daal di ko jël moom it ñu déglu li nga xamante ne moo ko soxal ci mii mu réew salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi noo def. sant yàlla soxna Odile. naam noo tudd fan ngay wootee. Kala maa ngi wootee Tivaouane Peulh. Kala. waaw Tivaouane Peulh waaw. waa ñu ngi lay nuyu. Mhm, fay la di nuyu mbokk auditeurs yëpp. Mhm, di ñaanal yàlla ñëpp jàmm. amiin yaa rabbi. gàmm gi ñu jógee yàlla nañu yàlla may ñu fekk ku néew gi ni déwén. amiin yaa di nuyu waale sunu mbokk taalib ba rek bàcc kër ma daaro mhm. nuyu waale waa Aneen waa Ndiiree nag yëpp. koy nuyu bu baax a baax. ndax ñoom mbokk liñ mbokk taalibe gi. ginnaaw loolu. maa ngi déglu léegi ci seen journal bi mooy ki nekk Rosso gi mu ngi wax na nañu gars yi nañu jàppale euh, Doudou Ka mu génnee Sonko bi Ziguinchor moom nag mu ngi jubóog ay mbokkam loolu mu ne na moom mu ngay fekki Bokar léegi moom mu ne nañ génnee eh, Ziguinchor eh, Ousmane loolu doy na waar de yaa ngi jubóog say mbok bëgg a mbokk jàmbur génnee seen mbokk te yow ngay woote na nga jubóog say mbokk ni nga koy expliqué ci plat parce que ñun ay alpaar loolu waaw léegi moom mu ngi woo ay mbokam moom kay nañu génnee seen i mbok mbokk Ousmane Sonko lañu dégg li ñuy wax ñoom nañu am xel ñu jàpp seen mbokk parce que seen mbokk la parce que politique rek la ñun nag faraluñu kenn mais nit ki moom boo waxee dañ lay jugé seen nga wax selon yow yaa ngi ànd ak say mbokk bàyyil jàmbur ci ay mbokkam jugé ko lu ngeen mën a politique politique baax na mais bul boole ay mbokki jàmbur ak ay nit ak ay mbokkam yow yaa ngi ànd ak say mbokk ànd ak say mbokk bàyyi ko moom mu ànd ak mbokkam ñu xool nu ñuy def que le meilleur gagne yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm amiin yaa rabbi kala ca Tivaouane Pël la doon wootee ñu xaarandi rek keneen ci buumu jokkoo bi bu yegsee rek ñu daal di ko jël moom it euh, déglu ko salaamaaleykum salaamaaleykum kooku déggante wuñu euh, xanaa ñu euh, taaxirlu rek keneen daal di dikk moom it salaamaaleykum allo Odile naam maa ngi laa ziar delloo ziar bu wér yawa mbay laay Cambérène moo nekk ci buumu jokkoo bi mbay laay ca Cambérène waaw soppee xaaye Guèye mhm. di nuyu waa Daaru gay ak sa njum siin mhm. ak ngay ngay asan ak dëkk yi leen wër Odile bëggoon bokk ci débat bi ay ca yow la ñuy déglu Odile laari dañu wax ne seytaan maaw maalum loolu la naar wax seytaan maaw maalum affaire u xeet affaire mbokk yàlla nañu yàlla musal nañ ñu dimbale ci loolu dañ ñu dimbale ci loolu ñun Sénégal nous appartient ñun yëpp ñoo ko bokk dañu bàyyi seen wax yooyu ñuy wax amul benn njëriñ bon di wax mbiru maire yi ñun parti socialiste la ñu bokk président Macky Sall la ñuy déglu képp koo xamante ni wax nga te Aminata Mbengue waxul wala Wilane waxul te wax boobu amul benn impact nañu nekk ci ginnaaw li liste parallèle laay bañ a dégg dañ ko séq ak coalition ba nga xamante ni xaw ma nañ ko nañ ko tuddee sax coalition yeew xaw ma yeewi yàlla sunu borom mooy wane boppam ne woon naa leen coono du fi jug kanam la jëm Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk lii xew suba yàlla rek moo ko xam maa ngi dégg nag ay ñiy analyser politique li ñu doon analyser lépp a fausé Babacar Cissé Demba Ngombaan ak ñëpp a ci yem élection 2012 dañu woon dañu ñu woon election euh, yi su passé parti bi day tas coalition bi day tas coalition bi depuis 2009 ñu ngi ànd nekk benn xàccoondoo dóorandoo bu kenn nax sénégalais yi Benno Bokk Yaakaar moo fi nekk coalition la bu yàlla barkeel nañu fàtte affaire parti ay affaire ak parti socialiste ak AFP góoma loolu man maa ngi gëm Benno bokku Yaakaar parce que Benno Bokk Yaakaar depuis 2009 dañu xool loolu ndam rek la ñuy am ndam ndam président Macky Sall nag ne war naa leen du neenum élection yëpp daf ko gagné moom bu demee day daan ku ànd moom boo demee daan ku mu kontaan ci yow moo demee daan nañu tënku ci loolu déglu président Macky Sall ñu dem maire Cambérène Amadou Samb mi ngi déglu président Macky Sall di am am Aminata Mbengue Ndiaye bu ñu demee bureau ba waxtaan eh, defe naa candidat yi kenn ku nekk di nga xam fi nga féete loolu mooy dëgg ñu fiy wax yëpp ay waxu yàq laak ñun nag suñu candidat bi nga xamante ni mooy suñu candidat Mabar Talla Gadio nekk maire maire jërëjëf Mbaye Laye ca Cambérène moom ay similiyam moo jeex ñu xaarandi rek keneen ci euh, buumu jokko bi moom it ñu déglu ko li ko soxal ci miim réew salaamaaleykum salaamaaleykum. asalaamaaleykum soxna Seye. bi noo def. naka def maa ngi nuyu maa ngi wootee France quoi. noo tudd. oui bàyyi ma lef ko rek ba beneen yoon quoi damay wax ci affaire mairie yi quoi. Mhm, yow la déglu. waaye parce que maire yi moom mooy maire mooy maanaam comme yaay rek laa ko mën a waxee maire yi moo war a nekk nga xam ne population bi commune bi lépp lu ñu soxla da si war a jóg te maire yi dafa war a nekk koo xam ko patriote la ku bëgg maireem la ku bëgg fa mu ne mu jare ko lu ne du jaay suuf wala bu koy jaay da koy def ci lu leer wala bu koy may mu may ko ay fonctionnaire parce que suuf si état bi moo ko fi def pour ñu may ko population bi vulnérable bi ñu amul dara mais kon bu fekkee dañuy jaay suuf te ñi amul dara ñoom fuñ jëm vraiment bu ma sañoon vraiment ñu changé lépp indiwaat ay xale yu ndaw yu maaseeg jamono ñu yoon mairie yi ñu dox oui vraiment man loolu laa gis quoi ci Sénégal. Hmm. mun il muy muy am soppite que chaque instant soppi lii soppi lii soppi lii surtout ay Fatick ay yeneen dëkk yooyu hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Euh, mbokk moomee doon wootee ca France ñu koy jaajëfal bu baax a baax biti réew 33 le 841 22 33 salaamaaleykum salaamaaleykum. kooku uh, dem na ñu xaarandi rek keneen ci bu mu jokkoo bi moom it bu yegsee ñu dalal ko déglu ko moom li ko soxal ci mim réew salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bi noo def. Uh, sant ak askan ak siyaare gaa yu baax yi. noo tudd fan ngay woote. grand mare bu Serigne Diome Ndiaga. waaw ñu ngi siyaare ñëpp di wax rek ni maanaam maire yi. Mhm. Uh, maire yi ni ma ko gisee. Mm. képp koo xëy yow ci sa maire daal bu bu mu sax jéem a laaj maire mënoo ne sa waaye ci ndakaaru gi ne tëdd ndakaaru laaj maire bu Ourossogui wala nga bëgg ba Matam wala nangam sa am Birane Ndiaye nañu xool doom ji dëkk ci dëkk bi bu ñu yewoo di ko gis ñu mën a àndal liggéey euh, koñ bi mu mën a sotti réewum Sénégal mi daa yomba defar te kenn koo defarul réew moo xëy li adduna bépp xëccoo mi ngi Sénégal gi muy or muy zircon muy phosphate muy xorom muy euh, xam nga li euh, béeki sax am na Sénégal béeki nga xëy ni góom boo ko def mu wér ku naan saat boo ko naan wér dem na moom dékki suuf la lépp ba ci senegal te boo añee doo reer boo reer doo dékki nganam nganam nganam nganam xuloo fii ngaayoo fii sama waay xam nga ne député bu nee ba ñaan ay passeport yi yéen tuumaal ay député ay soppi xaalis yu mel noonu réew mi fan la jëm réew mi fan la jëm waaye nañu réglé waay nañu seet ñi mën a yor réew mi ñu jox leen ko ñu mën a yor réew mi ñu dagaase topp ci nit ñi waaye ku war a lekkum ko ku a da nga leen ku ku war a sàmm ay nag boo leen sàmmandoo nit dana leen lekk la mooy jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, grand Mar ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu xaarandi rek keneen ci bu mu bi moom it bu yegsee rek ñu dalal ko daal di ko déglu rek euh, li ko soxal ci miim réew salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Ah, kooku déggante dañ leen di ñaan rek ngeen déglooñu ci téléphone yi bu ngeen déggee ci rajo bi dafay daal di xaw a tardé tuuti eh, kon bu keneen yegsee rek salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. Ah, soxna si maa ngi sant yàlla bu baax yow la kan. man la Mar américain di wootee fii ci Amérique. Mar américain. waaw ah, maa ngi lay nuyu di nuyu. Mhm. waa Sud FM di mhm, leen ziare. waaw parce man li may ñëw mooy. Mhm. ñun rajo yi dañu ciy indi suñu xalaat rek di kaf ak ree ak di politique politique boo nga xamante ne rek ak di gën a yee population bi. Hmm. ñun loolu moo tax ñuy dugg ci rajo yi mais ñëwuñu ci pour utal kenn noonu wala ñu nekk noonu kenn. Hmm. waaw dañoo jëm ay élection te élection yu jëm dañuy ñaan yàlla egg ci jàmm ak salaam rek yàlla may ñu ak wér. Hmm. ñun ñëpp fekk ko. amiin te soxlawuñu ci violation ñu ci dara. kan mais yi nga xamante nekkoon nañu fi. te population bi wan leen gannaaw muy cinq cinq cent huit maires yooyu wax dëgg yàlla bu ñu sañoon ñoom ñëpp ñu toog bàyyi ñu jël ñu bees teg leen fi quoi ay jigéen ay xale ak ñi nga xamante ne dañoo bëgg a nekk candidat pour doxal seen réew. léegi ñu ñu kii leen quoi ñu ñu ñu lool leen quoi ñu fal leen moom moo gën a rafet ba tax na ñun ñi nga xamante ne dañoo nekk ci rajo yi dañoo am droit. maire yi fi nekk 2009 ba léegi soxlaatuñu ci kenn ak ku mënti doon ak maire Sénégal yu bari dañuy corrompi ak jaay suufu Sénégal jël alalu réew mi def lu leen neex liggéey lu ñu dara population sénégalaise yi yaa ngi may dégg. Mhm. ñu ngi lay dégg Mar Mar américain ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg li ma bëgg moom mooy. Mhm. nañu gën a góorgóorlu ñun ñuy dugg dugg ci rajo yi. Mhm. ñu faxe teg fi ñu patriote walla ñun ñu nekk ay mair mën a doxal réew ma mair yi fi nekk yëpp amul. mu nekk Kaolack wala Fatick wala Touba wala Dakar wala Ndar wala fu mu mënti doon nañ leen fi jël ñoom ñëpp raxas leen ba ñu set nekk teg fi ñu bees waaw ñi nga xamante ne sàccoon nañ suuf si jaay ko ñu jàpp leen ñoom ñëpp jugé leen tëgg leen parce que. jërëjëf maar américain ay similiam moo jeex ñu xaarandi rek keneen ci bu mu jokkoo bi 88 la 628 98 98 bu nga nekkee Sénégal salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi noo def. allo. noo tudd fan ngay wootee. allo. salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam ñu ngi lay ziar soxna si. delloo ziar bu wér noo tudd ak fan ngay wootee. waaw man la Malick Seck Baye Fallou Cheikh Béthio. Malick Seck waaw. waaye maa leen di nuyu yéen waaw man de dama ne. Mhm. gis nit ku si nekk yow yaa war a xool ki la doy nga fal ko ci sa koñ. mu nekk sa maire. Mm. parce que ab maire da nga koy xam. wal ko mu lay dimbale di dimbale waa koñ bi di doxal koñ ba mais ñun état bi dafa bëgg à chaque fois mu ñuy xoolloo fu ñuy xool wala mu ñuy def lu ñu war a def te loolu du yoon nit ku si nekk am nga sa choix tànn sa maire ngir nga bàyyi ku si nekk tànn maire bi ko doy mu représenté ko si koñam beneen bi si topp mooy Ousmane Sonko yàlla na am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm. jërë ngeen jàpp. jërëjëf malik sekk ñu koy jaajëfal bu baax a baax Baye Fallou Cheikh Béthio ñu xaarandi rek keneen ci bu mu jokkoo bi tey jii kenn tënku leen ci kàddu dañuy ñaan rek mu sol mbubb mu jot su ko defee nag dégg-dégg bi mën a neex salaamaaleykum. salaamaaleykum allo. salaamaaleykum waaleykum salaam wa sant yàlla bu baax sëñ bi noo tudd ak fan ngay wootee. waaw yéen a ngi am jàmm. Mhm, sant bu baax. waaw ah, dama lay woowee bitim réew bëggoon lépp tur bi rek maa ngi jéego bu baax gaa ngi lebal ma ko. waaw amul problème. bëggoon wax rek tey si waa SN parce que Sénégal. Mm-hmm. ñuy jégalu bu baax a baax mbokk moome euh, ñuy jégalu bu baax xaarandi rek keneen bu yegsee Assane Diouf mu may xamal ni kenn képp nag moom ma daal di dese salaamaaleykum. maaleykum salaam wa yaa yow yaa mujj tey ci wax sa xalaat bi ci euh, kon 17h bi. waaw ah, macha allah kon nag. mbokk la maaf ma jóg. noo tudd. noo tudd. man euh, Malek Touré waaye maa ngi wootee Belgique. Belgique ah d' waaw Belgique lay woote waaw. yow la ñuy déglu. da bëggoon joxe sama xalaat rek. yow la déglu. li xew fan yii nii parce que man damay faral di xool réseaux sociaux yi Sénégal. Mhm. attaquant bi dafa bari trop kenn ku nekk di attaqué sa morom. te xam nga man li ma jàpp ne moo ko yokk parce que soo jëlee par exemple nga jël sa benn kilifa yow sa kilifa la mais peut-être yiliful ñëpp alors que boo jëlee sa kilifa wax ne moom moo gën ñëpp moo def nangam ku ko wax dara na la gouvernement bi jàpp nañ la tëj nañ la def li nañ la def li mais yow yaa ngi wax kilifa jàmbur lu ko lu la neex xam nga xam nga loolu tam bon à mon point de vue dafay poser problème parce que bu fekkoon ne dañuy yemale Sénégal yi yëpp nga xam ne moo xam kilifa la ñi ñu tuddee kilifa ñoom ak ñu dul kilifa ñëpp ñu yem ci kanamu loi man dama yaakaar ne loi noonu la war a doxee maanaam yow Odile su ma la waxee dara. Hmm. li may fay pour euh, pénal wala prison wala amende soo ma ko waxee yooyu nga fay lu toll noonu ni kon problème du am. Hmm. mais problème bi bu amee bu fekkee dañu bëgg a jël benn côté rek. mais alors kii bu baax la ku rafet la moom nu wax noonu la keneen lu wax du noonu ça pose problème pour man. Hmm. voilà léegi daal xam naa ne suñu réew mi waroon nañu jéem a jéem a gën a defaru pour euh, teg yi réew mi ci yoon parce que en réalité réew mi tegul ci yoon vraiment. Hmm. voilà loolu laa bëggoon a wax. jërëjëf jërëjëf mbokk moomee doon wootee ca Belgique ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. mu yem boog fu ñu yëkkatee jotaay bi ci euh, xabaaru euh, kon li nga xamante ne moom mooy tàkkusaan si ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak rajo Sud FM daañu ko yeggali bu 21h jotee euh, foofu tamit kenn tënku leen ci kàddu kon kàddu yi dañuy ñaan rek bu sol mbubb mu jot su ko defee nag dégg-dégg bi mën a neex Assane Thioune cant ak ngërëm ñal na la ci wàllum technique bi kii di Babacar Samb dina dikk bu 18h jotee xabaar yi ci français doon jàngeen jëf.